mi ngi noonu mbokk internet yi bàyyi xel SBT amaan nañu mbégte ak kontaan tey ñëw fii tey Pikine ah Pikine nag boo ko tuddee sa xel dem ci ay ay ay ndaanaan yu bëri ci côté yi ñuy yëngatu muy musique ah, muy muy couture ah, muy wàllu arsenal lu mu mën doon rek Pikine ah jëlu ci ginnaaw ah, macha allah tey nag ñu seet si kenn koo xam si ne nii miin ngeen ko ci SBT Média ah miin ko ci réseaux sociaux yi muy Mame Thierno borom président euh, mouvement Sénégal Vision ah muy mouvement boo xam si ni mouvement ba mu solo la SBT ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum jërëjëf euh, ginaaw bi ma sante yàlla julli si yonent bi sant samay ñaari waajur di sant Serigne Touba Xaadim Rasool suñu yaakaar te ëllëg di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan aussi à travers SBT Média di la nuyu yow Mass euh, sama doom baay di la di la encourager di la ñaanal aussi ci sa scène bi di wax nag na ñëpp dugg abonné ci SBT Média parce que vraiment tele la boo xam ne tele askan bi la euh, heure bu ñu ko soxlaa rek day ñëw suñuy tànk ñu wax liñ bëgg a wax. Euh, te loolu lu am solo la macha allah. ñu ngi wax nañ la abonné leen ngeen bës seen touche cloche notification ko defee vidéo yi nga xam ne SBT mi ngi koy dugal nga mën si ànd ñun mën ngeen dem suñu site internet www.sbtmedia.com wala Facebook euh, sbtmedia.com wala Twitter sbtmedia.com wala euh, Instagram sbtmedia.com yooyu yëpp boo fa dem di fekk ah, di nuyu kenn ko muy alaaji Naar Mbaay sama xarit buur géwal ah, di nit baax di nit ku yàlla mais ñi nga xam ne ñi lay seetaan te miinuñu la tey boo doon wax kan mooy Maam Thierno Ndiaye ci lu gàtt waaye mais jërëjëf maam Thierno Ndiaye moom donc xam naa ne ñenn ñi xaw nañ ko miin ñenn ñi miinuñu ko te àdduna noon la du ñëpp la mën a miin maam Thierno Ndiaye benn benn jeune la rek boo xam ne aussi euh, banlieue bi la nekk nekk ambassadeur de la banlieue dara ñoru ko lu dul banlieue dara ñoru ko lu dul Sénégal aussi rawatina aussi euh, askan bi ak bépp ndaw boo xam ne rek yaa ngi góor góorlu donc maam Thierno moom yaa ko tax a jóg waaw. Euh, maam Thierno dégg nga li nga xam ne moom la wax mais ci nga xam si ne di tey fi ñu tàmbalee mooy mbas mi en tant que téer en tant que président mouvement euh, li nga xam ne moom mooy artisan yi ak yu bi mbas mi duggee léegi nag nga ko jàngate. non mbas mi moom vraiment dafa nekk loo xam ne dafa metti trop trop trop mbas mi metti na ci ci baadoola yi ñun doomu baadoola yi parce que li tax mu metti si ñun mooy mbas mi dafa ñëw fekk ñu si situation bu critique muy première vague bi. ñu ànd ci état bi di sensibiliser di def naka su lu ne ñu koy def te teewlu aussi ñu ngi ànd ak suñu ngor ñu demaat amoon na benn activité bu ma waroon a def tout récemment du yàggul dara maa ngi ko doon def le 6 février bi à Batra finalement mbas mi moo tax defatuma ko activité bu ñu ba ñoo sax mënuñ koo am mënuñ ko def ba ci téer yi nga xam ne comme en tant que man aussi tamit téer la parce que li kat bi naan mën naa ci bii boor waaye mën naa ci bële boor 5 heures la ñuy wàcc amatuñu ay ñaw xew amatuñu ay ñaw parce que ku ku war a indi ñaw donc dépassé ko toog kon situation mbas bi moom buñ ciy wax sax ba suba du jeex métti na trop vraiment surtout ñun doomu baaloola yi. donc tey euh, bi mbas mi deuxième vague bi ñu ko lancé ñu ne euh, dañuy wàcc li nga xam ne moom mooy marché yi 5 heures euh, mu mel ni que it état bi am na benn fonds boo xam ne génn na ko pour jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy artisans yi. waaw beneen bi aussi état buy jël décision nañuy sóoraale parce que li tax mu war ñu sóoraale mooy am na loo xam ne rafetul. ñoom dafa mel ne duñu xalaat nit ñi nga xam ne aussi ay ñafekat lañ ay liggéeykat lañ parce que bu dee 5 heures nga ne nit ñi nañ wàcc nga xëy maximum 9 heures 5 heures ñu wàcc te ñu ci bëri marché bi guddi gi ngoon gi la ëpp lu ñuy dugg ci marché bi boo bëggee tëj loolu nit ñi 5 aussi dina métti trop trop trop nañu xoolaat décision yooyu ñuy jël comme ñoom seen seen poste attanut confinement wala attanut aussi tamit ak situation bi donc nañu yokk seen heure ñu mën a liggéey mën a for parce que situation yi dafa metti fépp fépp man 5 heures damay tëj ñeneen ak ñeneen 5 heures dañuy tëj te ñàkk pexe moo tax ñu koy def nga war a ñibbi sa kër bu fekkee da nga nekk ñaari tali war a ñibbi ci Pikine ça pose problème donc il fallait que ñoom ñu sóoraale affaire bi tamit kan ñu ngi ñuy rey ñu ñuy ñu ngi ñuy gàllankoor mbas bi du mbas rek daf daf dafa nekk mbas ba pare nekk plus mbas parce que aussi feebar bi am na mais tamit nit ñaa ngi feebar di dox muy problème situation amoon na benn fond boo xam ne dégagé woon na ko ministre bi dégagé woon na ko état nag def na li ko war bu ma nee état nag président laay wax def na li ko war mais téer yi artisans yi ñu bëri jotuñu pour dire vrai ñu bëri kenn jotul seen xaalis te vraiment som boobu som bu bëri la génn nañ ko ba déclaré ko mais ñu bari jotuñ te man bindu naa bindu naa ñu bëree bare bare bëri rafet na aussi lu mel noonu bu ñu jëlee suñu temps di bind suñu numéro yi ñu identifier suñu carte yi dem jox leen ko donte mënuñu satisfaire sax mais geste la ñu xam ne suñu réew moo ñu ko dimbalee dara dugul comme li ñuy wax chaque jour seen place yi nga xam ne dañ ko am di fay ah tey naka ngeen def pour fay seen location. non loolu lu métti la tey dama lay wax benn affaire wallaahi lazim sànq rek sama groupe whatsapp loolu la ñu waxtaanee ku dugg ne am naa problème mu luyaas cinq mois wala trois mois. mais est-ce que gars yi ñu ngi sóoraale loolu te borom kër yi duñ leen ko duñ duñ leen ko baal te Macky bi muy jël décision waxul dafa waroon a wax ne borom kër yi nañ leen nañ ñu jéggal 3 mois wala 4 mois moom mu mu moom mu survention subventionné ñooñu mais suuraalewul ñi nga xam ne dañuy loué léegi boo waree tëj 5 heures est ce que di nga mën a am loo fay luyaas te tey mairie du la baal da ngay fay OVP di fay ay taxes yu leer chaque jour ñu ngi wàcc sur le terrain di encaisser nit ñi xam nga kon situation yi bu tollee fii ñoom dañu war a arrêté lépp impôts yeeg yëpp dañu ko war a teg ci suuf te état bi Sénégal ñàkkul xaalis pour nga dem vacciné wu non pour nga def test Covid 40 000 la. te chaque jour ñu ñu ñu ay ñetti téeméer nangam dinañ def test Covid bëgg démb rek sama jabar avant muy ñibbi maa ko yóbbu woon mu dem defi ci test loolu di dugg ci réew mi bari na kon nañ ci dimbalewaat nit ñi parce que tey man du ma la nëbb de am naa problème mu luyaas de yu bari sax am naa problème mu luyaas fi ma dëkk am naa ko sama place parce que liggéeyuñu ñu lan ngay def 5 heures nga wàcc kan moo ñaw xew yi ñu amoon ñëpp dañu arrêté seen xew yi ñëpp arrêté. kenn joxatuñu ñaw parce que teg tag situation bi moo toll foofu parce que boo demee ci xew ba borom xew bi neen dañ koy jàpp ka ñëw seetaan si dañ koy jàpp kan mooy xewati góor ñi kan mooy takk ku yor looy joxe première mbay njëkk nga dem joxe ko jëndee ko ravitaillement dañu waxaat loolu et aussi Macky Sall faaw mu xalaat mu mu bàyyi ñu xel tuuti suñu président la mais nañu sóoraale xam ne ñun instant bi sonn nañ surtout luyaas bu mënee def le tout rek ba subventionné borom kër yi ba nga xam ne situation yi dina métti ñu jéggal ñu bor yi vraiment dina nekk loo xam ne dinañu neex message bu am solo seen émission nay riir SBT Média ñu dalal ki nga xam si moom mooy Mame Thierno Ndiaye euh, président Vision Sénégal hmm, dégg ngeen ko li nga xam la wax euh, ci surtout si yi di wax surtout si côté ñi nga xam si nii mooy côté marché bi ndax am na ñoo xam ne la may wax chaque jour euh, dañuy lijjanti ba ngoon du leer ñu continuer waat di di ko lijjanti ba minuit une heure mu doogal la ñu doog a dem ñibbi am dépense boo xam ne bu ñu xëyee ci la njaboot gi war a war a war suturlu muy Sénégal muy dëkk boo xam si ni wax dëgg yàlla actuellement nii mbas mi avant mbas mi sax dëkk bi mettoon na rawat na bi mbas Ah, mais mu benn kayit euh, à part loolu du secteur bi nga nekk muy muy muy muy teer yi mais am na yeneen secteurs yoo xam ne noonu taxawee su mel ni làmb ji boobu ba léegi gis nga làmb ji taxaw ah tey promoteurs yi joxe woon seen avance mbër yi nga xam ne préparé woon nañ ba ne combat bi suba la tey ñoom it booba léegi dara leeragut mais ñëpp la léegi dama lay wax Sénégal gépp la état bi rek fi mu toll nii mooy baax daal la amul ruq bu seet xam nga waa cin la amul ruq bu seet léegi benn moom arrêté na est-ce que xam nga par par jour ñaata personne ñoo doon jugee Dakar wala di jugee feneen di dem di visiter ci sëñ bi léegi nga arrêté ak sëriñ si nga xam ne sëriñ su ndaw si nga xam ne aussi vraiment liggéeyuñu ndax sëriñ Touba aussi day joxe dépasse ba pare du ci lekk li ñu am mooy nit ñi indi leen addiya léegi loolu lépp mënatul am ñooñu ñooñu rek nga xam ne dañoo toog waxtu malaak ñun ñi nga xam ne ay chef d'entreprise lañ tey làmb ji ñu ne la làmb dakk ñaata promoteur ñoo génne seen avance def joxe ñu arrêté làmb mbëri làmb lañ am di mbëri buñ ñu amul xaalis baa duñ commencé waat ak ñenn ñi di agressé moo tax ma ne la faaw yi sóoraale situation bi chiffres yi ñuy yokk waxuma ne mbas mi amul am na ndax ci ñiy sensibiliser la bokk mais ni koy waxee amul nañu fexe ba dimbale gars yi xool nan lañ mën a def pour respecter mesures barrières yi kuy dugg am nañ ay tests rapides seen seen kii euh, seen test yi ñuy def seen bët yi lu mu leen di jariñ nu mu tuddee sax euh, affaire boobu ñuy ñuy ñuy dóor sa bët nga li lu muy jariñ nañ ko def léegi kuy dugg si ñu ñu ñu dóor la bu dee da ngaa négatif ñu génn la ñu mën ñoo bàyyi ibil ñu suñuy boîte ibil ñu aussi suñu estat ñu mën a suivre làmb mais dañoo bëgg rey Sénégal ba mu dee dee dee te amuñu xaalis ba pare bàyyi ñu si pauvreté état bi ñenn ñu yor seen i milliards ministres yor seen i 4 yu baax yor seen kër yu baax léegi ñun ñu nga xam ne ñooy doom rawatina sax ñun doomu banlieue bi di dund ci pauvreté rek loolu ba kañ ni làmb comme lay wax chaque jour Sénégal ci lu baax la am ruq bu sedd ni làmb di jooyee noonu la musique bi di jooyee ah euh, muy loo xam si mooy léegi lan nga jàpp ne comme solution loo xam ne état bu ko tegoon yow en tant que koo xam ne maanaam xale nga dëkk ci banlieue bi am xel di xalaat loo jàpp ne tey bu ko état defoon dinañu mën a génn ci li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi nekk. non mu jël ay responsabilités am parce que réew mi jàmm fi am ndax ku tedd ki ñaan na fi ba pare ñu bañ a roy ci tubaab yi ni ñuy doxee tubaab bi dañoo ëpp doole téeméeri junni yoon ñun li war a doxal suñu réew loolu lañu bloqué mais respecter mesure barrière yi déggoo li ma laa bu dee làmb la nañ bàyyi làmb donte aussi li ñu wax sax mënta nekk ñu def làmb bii kolo loolu mënta nekk ndax làmb aussi li koy dundal mooy people bi te ku ko fi bëgg a def it booy duñ ko nangu tey boo demoon stade bii nii ñu bii kolo la booy Pikine far foos dinañ dugg amul ku leen di téete dinañ dugg yaa ngi dégg te làmb xoolal ñaata personne ciy dund yéen site internet di ci ngeen bokk ja defar ko tu si lañ bokk transporteurs yi ci lañ bokk kon làmb mooy moo moo moo yor Sénégal. jaaykatu ginaar yi jaaykatu xar yi. jaaykatu nag yi. merci merci beaucoup jaaykatu ginaar yi jaaykatu xar yi jaaykatu suukar yi bul fàtte loolu. jaaykatu dugub yi làmb bàyyiwul dara. jaaykatu perkaal yi merci làmb moo garaaw làmb moo bàyyiwul dara. làmb ci sport Dakar yi. làmb ci sport bo yamut ak benn sport ci wàllum liy dugal xaalis ci biir dëkk làmb ñëpp a ciy ñam. carburant bi carburant bi ñëpp. sëriñ si ñaan merci léegi sëriñ si bu ñu enquêté seetul lu ñuy def. jaakatu gu rëy waaw waaw dëggal ma wax làmb bàyyiwul dara làmb moo bàyyiwul lenn lenn lenn rek loo xam ne donc dina dina dina bàyyiwul dara bàyyiwul dara ci économie Sénégal léegi nga bëgg rey rey rey làmb ndoro ñëwal génne say wool médecin yi ñu dem ci buntu stade bi taxaw kuy dugg ñu test la bu ñu amee ci yow benn sikki sàkk rek ñu puus la ne la bàyyi nit ñi dugg bu làmb ji jeexee ku nekk dem ñibbi loolu mooy solution bi mais solution du tëj mais am naa yàqin ka nag dina dañ parce que boo gisee Macky nim bii ak euh, bu njëkk bi du benn boo xoolee par 15 jours lay jël par 8 kon donc mu ngi sóoraale mu ngi sóoraale quoi. mais parce que boo xoolee 15 ak 8 ak 10 ñoo yem rek parce que prolongation lay defar day ñëw ba ne léegi 12 jours ñu jékki-jékki ñu ne prolongé nañ ko bala nangam xam nga defoon ne sax 3 mois la ñu xam ne 3 mois la mu jeex moo moo gën. waaw mais xam nga li tax mënut def 3 mois. mu ngi def test xam nga état état aussi tamit dafa am nu muy fonctionner ak nu muy doxee ndax état bi day sóoraale dañuy sóoraale bu baax dafay sóoraale askan bu bu baax a baax a baax ndax xam ne yoo xam ne boo ko naree def du pas pour man waxuma nag damay influencer pour booy def mais sénégalais ñoo dem ba mujj wàccaat sur le terrain delluwaat ci taal puno yi te alors que sax vraiment du loo xam ne lu ñu neex la wala lu ñu bëgg la wala déet non parce que jamono ji moo toll foofu noonu situation yi moo metti imagine toi nga am mu loyaas borom kër gi war la génne mais boobaa nooy def boo ñaanu ma ko yàlla boo gisee loo sàcc sax mën ngaa jaay sa ngor man dama comp bu ma comprendre système bi gars yi bëgg a teg dafa mel ni gars yi dañoo bëgg a dundloo ci ndóol ba ñu ndóol nga baal ma nag formation yi ñëw ci dëkk bi am fi doole góor jigéen yi ñëw ci dëkk bi am fi doole léegi nag commencé guerre xam boo nekkee boo buñ la bëgg boo sonnee boo mënee jaay sa ngor ñu ñëw na la nekkal formation ñu jox la xaalis wala nekkal féeg wala na man damaa yaakaar ne ñun foofu lañ nar a mujjee am suñu réew su ma la déggee mooy euh, mbas mi nga xam ne mi ngi si la euh, àdduna bi yëpp di lëmbee maanaam euh, am na mais da jàpp ne dañ cee rax politique. non am na am na mais dese nañoo wax gaay li ci nekk lépp man maam Thierno maa ko wax dañoo war a wax li ci ne ba pare ñu bàyyi ñu tuuti ñu am tuuti liberté léegi sax maa ngi gis bu ñuy joxe résultats yi commencé nangu nañ may Euh, journalistes yi ñu dem ci hôpital yi di di filmer mais du ñu wane seen kanam man tey sax laay door a gis journal ñu koy def mais lim yi ñuy tudd dafa bari c'est trop batalo ñaata personne lay jël te ñi ci faatu yow boo ko xamul boo ci amul mbokk am nga xarit boo xam ne am nga ko ci dëgg loolu dëgg ñàkkul ñàkkul ne batalo Joola yow mii boo ci amul mbokk am nga xarit boo xam ne am na ci mbokk léegi chaque jour ñu ne 1000 personnes moo moo moo feebar 1000 yow da ci am xarit bu feebar ay Me El Hadji yi ngay dégg ñoo xam ne seen làmmiñ dafa rëy ñuy wax ay Ablaye Balde ñoo gëwuma ñoo loolu am na mais ni ñu koy waxee amul. ah dama koy tudd kay ndax dama dama ko fonkoon mais moom laa dama ko fonkoon mais dama ko xeeb. dama ko fonkoon mais dama ko xeeb. avocat du peuple. non man man moom nekkatu ko parce que dama dem dama dugg TikTok di seetaan suba gi gis muy saaga sénégalais yi te loolu loolu kilifa du ko def te nga ne danga bëgg a jiite réew. ñu wax benn tur nga ne ñu koy wax ñëpp ay nangam taan lañ ku dugg sama statut bi ko gis dafa ñaaw. ma wax la. barki seexul xadim moo ko wax boo bëggee léegi ma génneel la audio bi ma génneel la ma génneel la vidéo bi mën naa génne vidéo bi moom moo ko wax. te loolu lu ñaaw la boo duggee yaa sama numéro maa ngi sa numéro dugal sa statut bu dee yaa ngi connecté wala ngeen abal ma téléphone ma génne ko muy saaga saaga sénégalais yi nii moom Me El Hadji ba pare nga ne yow da nga bëgg a nekk président Sénégal loolu c'est pas normal. waaw nañu bàyyi caaxaan yi te wax ñu li nekk ci affaire yi bàyyi ñu ñu suñu activités yi démarré nit ñi mën a xew góor ñi war a takk jabar takk jabar ak seddaay bii di ñëw ah ñoom naar mbaay mi nga xam ne suñu xarit la ay communicateur <laughs> bul may daal loo waaye <laughs> célibataire fi ne dama leen yërëm de waaw man moom du ma célibataire parce que sama jabar ñibbi na mooy sama saar nga xam ne ñaar lan yor. non maas waa non yow moom yow moom macha allah yàlla la yow moom yow moom yàlla la Serigne Touba defal jàmm rek mais du ma célibataire ndax euh, fan yi rek kii naa mois yi jeexagul de maa ngi koy tàqamti ko ba léegi de. waaw <laughs> seen émission nay riir la SBT Média wax naa noon la ñu ko defee saa su nekk euh, di ci ànd ak ñi nga xam si ni ñoom ñooy euh, waa réew mi wax naa ne SBT dafay nekk ah, pour askanu wi yëpp ah, SBT dafay nekk pour li nga xam si ni moo nëbbu ah, ñu feeñal ko noonu la ñu koy defee seen émission nay riir abonné leen ba seen tuskula notification bu ko defee vidéo yi nga xam ne SBT mi ngi koy dugal ngeen mën di si ànd ñun mais maam Thierno moom mu mel euh, donte bois di tëggut euh, Sorano tëggul Grand Théâtre tëggut ak yeneen bois yi nga xam si ni min nañ ko ah ci mi euh, mais ba tey showbiz bi gis nga coow li bëri na diggante faramaaren bi ak ki nga xam si moom moo di moom moo di moom moo di Sidi Diop naka nga jàngatee loolu te nga xam leen ñoom ñaar ñëpp waa mais jërëjëf <laughs> ndeysaan bala may wax sax dama am sama benn booy boo xam ne dafa bëgg Wally Seck laay suma rakk la maa ngi koy nuyoo passage suma xarit mais dafa bëgg waali ba moom pour moom waali dafa maanaam lu ñu wax ci waali rek lu lu baax rek pour moom waxoo dara man soo biis d'accord mook coow ñoo ànd bii dafa ñaaw bu Sidi Diop bi ak euh, Waly Seck bi li tax mu ñaaw mooy benn gars yi ni ñu koy interprété ñaaw na trop concurrence moom fii lañ ko fekk Waly li tax tontuwul moo la gën a xam ne concurrence mënut a ñàkk ndax Waly bi mu jógee takk dégg nga moo Pape Diouf tey tëb na état bu Pape Diouf mu Youssou Ndour Sidi Diop ñëw nekk xale di rampe vraiment dugum jugee ci mi musique yàggul jëlalu ma paar Sidi Diop jëlalu ma paar Wally Seck bu dee xaritoo rek Sidi moo gën a nekk suma xarit ndax même bu dee benn fan Sidi Diop defal na ma teraanga defal naa ko teraanga am naa bis si ses mu ñëw fayu ma ko fukki dërëm mu ñëw moom Fallou Dieng Daba Sey maa ngi leen di nuyu ak Thiat Seck Wally nag defaluma dara mais ndaw la boo xam ne mu ngi defal sénégalais yi kon defal na ma parce que ku jàppale ndaw ñi rek jàppale nga ma te gestes yi muy def maa ngi koy gis di Sénégal bu ñu amoon ñu mel ne moom aussi dëkk bi dina avancé li tax mu li ma ciy rafetlu wul mooy Sidi ak entourage am dañoo juum fi ñu juumee mooy euh, xamoon nañ ni Wally Seck mu ngi joo xamoon nañ ni Wally Seck heure bi muy génnee son xam nañ Wally Seck son bi muy génne nu mu tudd xam nañ ban son la Sidi fukki xelam ak juróom ak conseil bu mu mënti am waruñ ko woon a dugal ci lobby yooyu parce que moom xamoon na ko ndax am nañ information yi jaral na leen ko bañ dem tey pour am possibilité pour xam li Wally war a génne tey ak jour bi muy génne bëgg bës jaru ko dara jaru ko ci àdduna dara jaru ko ci àdduna. su ma déggee euh, dañoo am topp ci biir euh, staff fi nga xam ne moom mooy moom mooy euh, Wally Seck. ma bu Wally bi dafa senn Wally Seck staffam dafa senn te ku ko def lu ñaaw la def ndax xam nañ même heure bi. man bi ma Sidi Diop di envoyé mu ngi sama ah li may wax man li may wax lépp la ma ci man Sidi Diop bi mu génne xam Sidi moom lu mu lu mu def rek ñun daf ñu koy partagé bi ma ko envoyé tag ma dugg gis bu waale bi laa xam ne lii yaa quelque chose la mais ma werante parce que man ñoom amuma seen jot ñoom ñaan ñëpp vraiment pour dire parce que am na yoo xam ne aussi mais soo bis bi ni ñu ko defee dafa salte bu dee Sidi lu ñu ko conseil la mu def la def loo nañ ko erreur ndax Sidi waroon na fekk sax waali di way dara moom waali di way dara ba jàpp ba pare Sidi programme ko sax sii di bàyyi mais tey xam nga ni lii la sa mag di génne tey Wally sa mag la taxaw nga àdduna yëpp wax ne sa mag la nga dem bëgg a génne loolu pour def buzz d'accord ma mais patt Wally nag neex na ma loolu jikko Youssou Ndour la wan na ko ni aussi man dama mature waxuma te samay nit duñu wax man li ma ci laaj moo tax ma wax ci parce que ay sénégalais lañ koom ñëpp mais war naa mën a gën a rafet ndax lu ñaaw la ki ko defit lu ñaaw bu dee alal la dara jaru ko ci àdduna tamit nañuy sóoraa xoolaat seen entourage parce que nit ki tamit bu la benn maas wóoloo ba boole la ci boppam nga la dama bëgg ñu liggéey noo war nga mën a garder seen seeni waxtaan yéen ñaar parce que liggéey liggéey la mais d'accord ma ngay fréquenter benn Wally Seck di senn alal jaru ko dara jaru ko ci àdduna pour rek jox ko di Sidi di ñëw teg ko pour buzz bien vrai que baax na ci Sidi nag baax na ci Sidi de coow li nii hmm. baax na ci Sidi parce que Sidi barki démb la judd Sidi maa mag Sidy bëgg dem la juddu ñëw fii am fii bës bu toll nii mais bës bee salte ni nga ko lijjantee moo salte ok comme sànq sa biir wax euh, nga ne wax na fi ne Wally Seck sama mag la tey ñu gis temps bu gàtt affaire bi changé lan nga jàpp moo war a changement problème mu entourage gis fii lu fi yàqu rek entourage la moo tax koy wut da ngay wut entourage bu baax man seen nga ñoom su ma doon ñoom di musique da ngay jël sa bët visé ko ci Youssou Ndour Youssou Ndour entourage am doo ci dégg kenn mu wax kenn yabu ko ci ba mu war a wax lu mu war a wax wala déet mais problème mu entourage la ndax tey Sidi eh, bi muy nekk eh, ci ñoom Baye Sall la seen problème demee moo ko Wally Seck te alors que loolu mënoon na ñaat ndax ànd bi tamit rafetoon na Sidi dem demal na Wally Wally bëggoon na ko te Sidi doon na imité Wally pour dire vrai man bi may njëkk a gis Sidi Diop ak takkaayam ak i photo kiyam dama ne kii élément Wally Seck la kon bu ko dara yàq ci àdduna. Sidi ba Sénégal yi bëri sa naan Wally numéro 2. Sidi Sidi tëgg na. tëgg na grand théâtre maa fa man maa ngi fa ma li may maa nga fa te grand théâtre am boobu vraiment soutenir naa Sidi Diop parce que mobiliser naa ñu bëri ñu dem seetaani ko yaa ngi dégg bi mu fa nekkee la problème bi commencé ma yaakaar ne bu demee suba teel situation bi dina arrêté situation bi gën a metti alal dara jaru ko ku ci bëgg sa produit jar mun nga xam ni nga koy defee mais sans autant que ñu lay guerloo wala ñu lay xeexloo bu mu ko def man maxa dama ko dama ko estimer parce que moom it jàmbaar la mais détails yii nii yii nii ñaax fayre yii nii buñ leen ci dugal buñ ci dugal booy waale xale la dafa war a màgg waali xale la dafa war a màgg te na def très attention aussi non Sidi parce que day màgg tey ñaanu ma ko yàlla suba mën naa am problème ak waa suba teel de parce que am naa problème ak waa suba te waa waa waa kii ñoom mën na ko am ñaanu ma ko yàlla waali yëf boppam la yor yow nag da war a fexe am sa yëf bopp parce que kenn ñaanul yàlla di bootu ci ginnaaw kenn maa ngi koy conseillé booy nga góorgóorlu xoolaat sa entourage te bañ a doon cuune bu nangu ñu sacrifier la mukk mukk mukk soo biis day jeex nongoloo anamu dem na njaga mbay anamu nday mariñaay gaaw la anamu kon na rafet na rafet bul nangu ñu sacrifier la loolu moom man maa ngi koy wax xam naa ne di nga ko seetaan. bi cooli comme relation bi ngeen am personnel yow ak euh, Sidy Diop bi affaire bi amee booba léegi est-ce que sa téléphone woo mais bëgg na man duma ko woo damay dem këram duma ko woo ndax Sidi daf Sidi du jël appel Sidi Diop c'est très rare mu tontu message loolu tamit baaxul ndax ñun tey dañ ko amul amul intérêt ñun dañ koy jàppale rek leen lañ am am suñu nit ku baax ne ko jàppaleel ñu Sidi Diop mii mu jàppale ko te yàlla tax parce que dañ ko yéene parce que doomu banlieue la doomu géejawaay la loolu lañ dañuy sawar pour def ko ak moom mais Sidi dafa teel xaw a yëg succès te vraiment dara jarul loolu ci àdduna yaa ngi dégg mais man man man am personne dinaa dem këram seeti ko te dina toog ñu waxtaan ñu xool na la ñuy def pour jàpp ci carrière am parce que lii ma gis nii nii nii nii vraiment jëmul kër seen émission nay riir la dégg ngeen maam Thior li nga xam si euh, moom la wax ci li nga xam ni moom mooy cooli diggante faramaren bi ak ki nga xam si ni moom moo di moom moo di Sidi Diop waaye mu mel ni que ku wax lit wax la ci des dégg nga fii euh, fan yi euh, kii bi mu tuddati Instagram bi it ah am na xale boo xam si actuellement ni mi ngi ko téye ah waaye cooli bëri ah, na diggante di di di génn ay ay di refale ay affaire yu bëree bëri ah, jëm si ay mooget ak yeneen waykat yi nga xam si bi ngi ci biir réew mi ku si mel ni Adamo noo ko gisee. Mass yàlla na la Serigne Touba fay. yow ku am xel nga boo ma ci laajutoon sax dama koy fàtte te lu ma bëggoon a wax la Sénégal ñoom pour ñoom jàpp nañ ne ni mën a amee xaalis rek mooy yàq nit jël sa téléphone def sa benn vidéo wax nit lu la saf man Adamo dama koy seetaan seetaanuma ko sax parce que damay kii dama koy seetaan xool ne kii est nit la nan la nit mën a teewee téléphone nag di saaga bala may gën a dee rek ñenn ñi nga xam ne tekkiwuñ dara dugg di ko tontu di dugg ci ay directam ay jigéen ñoo xam ne tey xanaa xalaatuñ ne suba dinañ am doom xanaa xalaatuñ ne suba dinañ am jëkkër dugg ci directam di ko tontu ñuy waxante mooyu bono bono bon bon Adama li mu nekkee sénégalais ñoo ko may ay ñoom Kécco ba ay ñoom gaay dafa am loo xam ne nit doo ko encouragé ci li muy def Assane Diouf bi mu fi nekkee di saaga lan lañ ko def États-Unis lañ ko jëlijee parce que carrière am dañ ko yàq léegi la moo tax ñun suñu suñu suñu njiitum réew mënuñu wax ci booy bu ndaw nekk Espagne gi nga xam ne boo yuuxoo ñu dégg la du États-Unis du du du Allemagne booy bi nekk ci WhatsApp bi lu ko neex mu def léegi ku ku bëgg a bës rek jël nga sa téléphone saaga gis naa ci beneen booy bu nekk jàmm gën muy booy xawma ma mu tuddati sax xaw ma sir xaw ma 6000 fanee passé laa gis mu togg Aziz Ndiaye Aziz naan ko bàyyil bàyyil saaga yi del wax leneen te teewul mu ngi gën a saaga lan moo gën a ñaaw loolu te ngay doomu Sénégal te bala maa dee nga ne barki sëñ Babacar si est que xam nga ni bo aadama moomu jànkat alxuraan la. adama moom bu la teglee eh, ja mooy wax tijaan yi seen seen jàng yooyu nga bàyyi àdduna àdduna jàng xam li yàlla wax lu ne mu koy def ci dëkk bi ñu ne déeta waaye am na benn booy bu nekk mbuur xaw ma nu mu tuddati moom it bu tudd xaw ma kii waaye ñokkoon na siiw mais après dafa fayaat maam fàll xaw ma booy ku nekk daal ñoom pour ñoom saaga daal moom moo lay may teraanga léegi nga am say vie encaissé dugal sa poos alal jooju nga yaakaar ne dina sedd man Moll Gueye jëlalu ma ko paar de déedéet xawuma ma ko mosuma koo gis mosuma koo teg bët mais xam naa ne doomu sénégalais la pourquoi warul am ay milliards am di ko maye moo xam nu mu ko liggéey la suñu yoon ñun duñ fexee xool nu mu tekkee ba mu mën a déplacer sénégalais yi ñu ñëw foofu noonu mu leen di dimbale ñaata nit lay jëlee fii yóbbu leen foofu noonu xaalisam la moo ko liggéey man liggéeyuma ko léegi yow nga bëgg a taxaw télé bi bu ko weer kii jàpp nañ ko bërëb nangam kii sàcc la xaalisu dorog la yow yaay sàcc bi yow yaay jaaykatu dorog bi parce que yow yaa fekke ndax yow yaa ko fekkee bañ koy tëj nañu bàyyi yàq deru doomu aadama mool xale la ndaw la gis naa ni am nay ambition pour réew Sénégal nañ ko bàyyi mu atteindre ambition am ñu ñaanal ko parce que Sénégal soxla nañ ay milliardaires aussi barki Dembo Ndiaye ku nekk may na fii nit cinq million booy Ama Balde bii bi mu feebaree ñaata ñaata mois ñu ngi toog ci télé bi di di sollicité yow wax nga ci ñaata mois kenn dugal ci loxoom. mais bi ma déggee Mool Géej laa gën laa commencé jug gis gis naa sama xarit sax Pape Gorgui Ndong maa ngi koy sant mu yëkkati un million def te ñaata milliardaire ñoo nekk Pikine Thierno Ndong ba nekkul fii Pikine ah Cheikh Ahmed Tidiane am nekkul pikin Amadou Diarra nekkul Pikine Lamine Gueye nekkul pikin ñun am nañ ay kilifa yu mag mais xoolal kay mu ngi jógee ba États-Unis ñëw yónnee xaalis pour ñu faj booy bi lu mel noonu bu ko nit dee def doo ko encouragé même bu dee xaalis bu bon la mu ngi ciy def lu baax na sénégalais yeewu te bàyyi. xaawi sutura jàmbur yi ñuy def jël taatu jàmbur gis naa ko mu yor benn vidéo mbay mi nekk DTV di ko ci chantage nit ñi tamit nañu yeewu te ànd ak seen conscience tranquille téléphone tey whatsapp dañoo créé lu garaaw booy xool statut whatsapp di nga ko gis chaque jour ñu ngi lay wax li ñu bëgg a def ñoom te xamal nga ko sa bopp même photo nii boo defoon photo taati neen tey nañ ma baal ci wax ji dugal ko supprimer ko ñoom enregistré nañ ko ñoom ci seen i tey bis day jot tey benn maas nekk lu mag Sénégal ñu génneel la ko kon gars yi nañ def très ci réseaux sociaux yi manqué mun ta weesu nga muy sa gel ak sa soxnaa comme ci mënti doon ngay jël ay tey téléphone di photo say yaram say taat di ko wane loolu lu salte la ku ci yeewul nag bañ sànni la ci réseaux sociaux yaa ko teg sa bopp looy waxanteeg nit na nga ko xam looy waxanteeg nit na leer nañ def très attention parce que dëkk bi dafa soo nañ ko moytu ñiy jël seen taat yi di ko envoyé jigéen ñi nañ ko arrêté lu lu lu lu ñàkk fayda la lu am lu ñàkk personnalité jigéen ñi koy defit di ko envoyé seen seen far yi nañ ko arrêté dëkk bi mu ngi bëgg a yàqu nañu arrêté loolu ku wax lii wax la ca des vraiment c'est pitié quoi. tey boo amoon mes conseil boo xam ne da nga koy jox ki nga moom moo di Adamo la que fan yii wax na fii ci ci ci artiste xam si ni macha allah bokk na si ñun gën ci réew mi ah, muy jigéen nekk jàmbaar macha allah liggéey liggéeykat ah, dégg nga fan yi li mu ko wax après mu mu mu tourné waat di jégalu tey message booy lancé Adamo ñu jeexle foofu émission. waaw non message amul benn message moo koy envoyé loolu yabaate la def ak yaree di ko ak indiscipliné. képp ku koy seetaan yaag moom yéen a yam man dama koy seetaan de. mais yéen a yam ñoo yam waaw. parce que maa koy may xaalis ndax chaque jour ma mu lekk sama sama xaalis mais man seetaan bi damay jàngat seetaanu ma ko pour pour li muy wax mu neex ma de damay ree ba tëdd sama lal mais seulement que man dama ne naka la nit kooku du nit xam nga dèjà matul nit ku jigéen kooku muy jël suñu suñu suñu suñu suñu jigéen la muy njole taal doomu pikin la kooku xamul lu bon njole liggéey lañ ko xam. muy dawal ay 4 x mu ngi dawal ransam bu baax rombuñu jigéen la day liggéey artiste moo mel noonu buñ ko jaxasee ak jëkkëram sëy na ba am ay njabootam ñu bàyyi yàq der bi aadamoo nag ñu jël ko tege ko à côté buñ bu Sénégal mënul jël seeni responsabilité lijjanti ko non na ko nit ñi tegee na ñu bàyyi ko te ñu bàyyi réseaux sociaux yi ñuy jël di xas nit ñi vraiment mu ngi yàq dëkk bi ñu mbokk internet yi li ñu mayoon ci waxtu xaawaa ba mais ki ñu invité moo ni toll ah dégg ngeen li nga xam si ni moom la fi wax muy Mame Thierno Ndiaye SBT Média seen émission nay riir jàpp naa moom ah riir na tey eh, lan ngay tàggoo mbokk internet <laughs> waa tey moom riir na ma tey moom da nga ñëw fekk ma jël samay garab armé wu puis naar tey daf ma bett quoi <laughs> man man leen la mais alhamdulilah santaat yàlla rek ci ci leeral yi lépp loo xam ne rek juum nañ ko ci wax ji nañ xam ne man la te nit moo matul te maa ngi jégalu sénégalais yëpp di jégalu aussi képp koo xam ne rek entourage yaa ngi sama entourage di remercier aussi Narfal encore une fois du ma jug ci di ko def parce que vraiment damay faral di wax ni pikin dañoo dese xam gëddëm su ma naan gëddëm nag des fois aussi euh, nit ki di nga bëgg xam gëddëm mais doo ko xam parce que boo ko jégewul doo ko xam talent kase la ñu ngi ñaan yàlla yàlla leeral yoonam ba fi mu bëgg egg moo xam suñu borom eggale ko fa di nuyu aussi aussi sama soxna. Hmm, di ko nuyu borom Paris borom euh, la Souterraine sama série koko boobu nga xam ne mooy sama derrière mooy sama mooy sama Marème Faye Sall di sama première dame di nuyu aussi sama sama goro euh, maman Ndeye Sène borom pari aussi di ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm gudd fan ak wér foofu mu nekk ci bitim réew aussi euh, yàlla defal ko fay tawfeex yu baax ak njabootam di nuyu sama yaay bi ma sukk jur aussi di ko ñaanal yi nga xam ne ñu ngi suñu ginnaaw ñu ngi liggéey chaque jour di waajal nag benn affaire bu mag du yàgg dara xam naa bientôt incha allah dinañ ko exposé Sénégalais yi gis ko jërëjëf di wax jërëjëfa Serigne Touba jërëjëfa Serigne Touba. SBT Média la woon seen émission nay riir ah, di leen jox dig dajee ak beneen daanaan ak beneen invité ah, ci SBT Média noonu la koy defee saa nekk wax naa Facebook Twitter Instagram boo fa dem fekk fa SBT Média ah, rawat na suñu site internet bi nga xam si ni information biir réew mi ak bitim réew wax naa ci man rawat na page sport bi ak politique ah société ah muy 3w sbtmedia.com dig dajee ak beneen daanaan jërë ngeen jëf